man moom damaa rus man moom damaa rus tey journaliste yi su demee ba police di leen wax dëgg ngeen wàññi seen tànk yéen kay yéen kay dëj bu bees kay garaawul ñoo ngeen dem ngeen ci kër jàmbur kay garaawul mais ngeen dem ngeen dem ba si armeel ba ñu leen di sànni ay xeer police police su leen demee ba wax dëgg dof bi nga xam ni police police wérul dof la

yéen seen seen yaay ne ngeen ñëw ci àdduna ba di jël ko wane ma ci biir loolu nag que seen yaay su gaañoo di ko vidéo Pawlish Mbaye nee na seen yaay su gaañu woon est-ce que di ngeen ko vidéo lan ngeen di def si armeel yi lan ngeen di def si armeel yi yéen kay filmé kay yem leen si armeel bi dem lan ngeen def si armeel yi bañ leen di sànni ay xeer fu ngeen ngeen fene fu ngeen ngeen dem am na foo xamante ne bu leen fa dem fi mu pop pop journaliste kay xam naa actualité am ngeen woo Waly

su demee ba Pawlish Mbaye nee journaliste c'est ignorable dem mais Pawlish ah, mais il faut mu changer les les données ont changé il faut mu Sénégal parce que pas journalistes ils lii c'est honte c'est honte sais pas si dara journaliste kay ah ne Ils pas ah dem pas si journaliste journaliste journaliste yi journaliste yi journaliste soirée soirée waa baax na dem len soirée dem len ci manifestation yi journaliste bu ba ay manifestation lañ len xamé journaliste bu ba ay ay ay ay comme comme déclaration pour conférence de presse la mais journaliste de anniversaire hein? <laughs> non non anniversaire ngeen dem dëj ngeen dem ngénte ngeen dem ah tour de famille ngeen dem lëmbal ngeen dem ah yéen bañu leen dara daal yéen yéen kon lii ay kayitu journaliste lii du ay kayitu war yéen yortu leen police may moo leen di wax dëgg yéen journaliste